salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi moo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaare bu baax di leen balu xàq ci weeru tedd wi ñu nekk te di leen bal àq di ñaan sunu boroom lépp lu nu ko jaamu rekk mu nangul nu ko eh, di seenu shahru ramadan bu wér ak mbég di fas yéene rekk jaamu ci yàlla bu baax yi ci sëñ bi digle woon rawatina njàngum alquran eh, noo ngi bëgg jël kàddu waxtaanaata ak yéen tuuti rek eh, ci loo xam ne dafa laal rekk sunu sang bu tedd bii nga xam ne amuna lu dul moom euh, muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér euh, te sunu boroom dëgëral ko te kàttanal ko te wéral ko ba lim bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu liggéeyal ko ko euh, di fàttaliwaat bu baax ak a soññe ci liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyu université bi. mu koy defal yàlla di ko defal yonent bi di ko defal Serigne Touba di ko defal umma islamique bi yépp euh, te muy sunu njariñul tey ak ëllëg kon nañ ci gën a taxaw bu baax gën a fonk liggéey bi ndax euh, murit day sëriñ Modou Amine te daana wax ne euh, tawatu murit rekk mooy ñàkk ndigal waaye murit bu xesee ba am ndigal moom ñàkkatul dara kon loolu eh, nañ ci gën a bàyyiwaat xel bu baax te gën ci góorgóorlu eh, moom moomi nag di Cheikh Mouhamadou Mountakha ab taxawaayam lu mat di fàttali la ndax nun murit yi Sëriñ Tuubaa rekk lañu gën eh, te am nañu yàqin bu wér ne Sëriñ Tuubaa moo donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ndono loolu mu donn yonent bi nag daa am noo xam ni euh, yàlla da ko waxoon yonent bi bi mu koy yónni muy wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin euh, te sëñ Touba moom bi mu dikkee ci dimension yooyu rekk la toll woon ak boroomam di ko di ko jaamu ak di ko liggéeyal ak di sàkku ci moom yërmande joo xam ne day daj mbindeefam yi yépp moo tax mu ne irham jami xalwara yaa haadiyan radaa kon euh, dafa leer nàññ ni sëriñ Touba moom mbindeef yépp a ko taxan di liggéey mbindeef yépp jataay bii nag Cheikh Mouhamadou Mountakha toog mooy jataay ba magam yu baax ya toogoon mooy jataay ba way juram yu tedd ya toogoon te eh, way juram yooyu toogoon jataay boobu itam ki ñu wuutu soo toogee jataayam yaay xalifa sëriñ Tuubaa ci biir murit yi yaay xalifa yonent bi ci biir jullit ñi yaay xalifa yàlla ci kaw suuf loolu nag tax na a cheikh Mouhamadou Mountakha nekk koo xam ne mbindeef yépp dañoo nekk ci biiram kenn génn ko boo xoolee euh, li ñuy wax le qutb c'est un pôle euh, c'est l'axe autour duquel gravite toute la création kenn génn ci euh, mu amoon fi nag ay gan yoo xam ne da leen a dalal gan ñooñu nag bi ñu dikkee ci moom it wax naa ak ñoom loo xam ni sunu njariñ la ñun taalibe yépp boroom xel yi digg nañu ko bu baax a baax a baax euh, boroom gis-gis yi it teg nañu bët ci li mu wax bu baax a baax a baax a baax a baax euh, te loolu mooy lan mooy euh, gannaaw coow yi fi amoon Assane Diouf dem na fa ànd ak Clédor seen ak Abdou Karim Guèye ak ñu bari mu dalal leen teral leen déglu leen ñu yëkkati seeni kàddu mu mel ni li ëpp ci li ñuy naqarlu dafa jëm ci diggante kujje gi ak nguur gi lu bari loo xam ne jàmbat nañu ko fa itam ñu jàmbat ko mu jëm ci ki nga xam ne moo jiite réew mi loolu nag sëriñ bi déglu na leen ba ñu àggal waaye am na loo xam ne fi saa si junju na leen ko ne bu fekkoon ne jotam may na ko dana leen ko jàngal te mooy doxinu àddina ndax fekkoon na mu am ay kàddu yu ko jiitu mooy sëriñ Mountakha dafa ne woon réew mu ne mën na am problème ba mu des Sénégal bi ñu amee sëriñ Touba rek loolu mooy wane na nag sëriñ Touba nag c'est une solution à tous les problèmes waaye ni mu ko tënkee eh, ci yaatal tuuti rek mooy dafa wax ni lii nga xam ne moo xew léegi nii fi ñu toll mooy defit la rek ndax lu daa am moo am mel ni lu am continuité muy sëriñ Touba mi nga xam ne moom la leen jox ci exemple ndax da leen ne xool leen ci sëriñ bi bi mu fi nekkee àddina eh, féete ko nii waaye itam euh, nguur gi fi nekkoon féeteku nii te yaakaar naa ni euh, bi fi tubaab yi door a ñëw ak doole ji ñu indi ak fitna bi ak ni nga xam ne noonu lañu ñu daa toroxalee nit ñi ak ni ñu leen daan reyee loolu yaakaar naa ne euh, du ñu ko méngale mukk ak li xew ci suñu jamono ndax booba ay droits de l'homme ay nit ku ñuul am ci moom considération déedéet booba da ngay nangu maa ñu rey la loolu rek moo fi amoon waaye sëriñ bi bi mu jógee jëm ci boroomam ñi euh, ñenn ci waa àddina ñaari xaaj rek lañu mën nañ ko wax mooy jullit ñi te booba jullit ñi amuñu doole ak ñi nga xam ni mooy ceddo yi ñoom ñoo yoroon doole ji gis nañu itam ne ñaari xaaj yooyu yëpp ñu bari fàq nañu ci mbooloo yooyu ñëw ci moom waaye moom it dafa indi lu bees loo xam ne nit ñi xamaguñu ko kon ñu daal di koy nangu fi saa si du yomb sëriñ tubaab bi mu jógee ñu néew ñoo ko nangul ñu néew ñu ko nangul nag moom ñoom la daldi di ñu ñu saxoo muñ daal delloo dogal yépp ci borom bi nga xam ne mooy def di dindi te digal leen ñu rafet njor ci seen boroom te digal leen ñu góor góorlu te waaxu topp ci gannaawam ànd wuti seen borom kon loolu mooy doxinu sëñ Touba kon euh, képp koo xam ne rek dugg nga ci ab rëddam sëriñ bi li mu lay digal mooy li nga xam ne daf lay naqari lépp da koy muñ yaa bi in ataytani fa shukru wa in manata dan fa sabru mooy dangay dangay da ngay da def saa boo amee li la neex ci sa borom nga sant waaye nag boo amee li la naqari nga muñ te jamono yooyu nag nguur gi fi nekkoon ñépp la naqari naqari woon na ceddo yi naqari sëriñ si naqari niti àddina yi ndax amul lenn loo xam ne nit ñaa ngi ko ciy gis ci seen bopp amuñ ci amuñu respect ci doomu aadama amuñu dara loo xam ne fa lañu teg nit ku ñuul ba ñoom ci seen bopp nag ñu jël nag sëriñ Touba bi ñu jàppee Serigne bi 35 ans de captivité la Serigne Touba def ci la liggéey liggéeyam bi yépp nga xam ne mooy liggéey bu réy bii nit ñi gis li mu amee ci boroomam lépp mi ngi nekk ak ñoo xam ne saa su ne ñu ngi ci di ko naqaral ñu ngi ci di ko jéem a sànq ak di ko jéem a faat ak di ko jéem a yàq ak di jéem a yàq mbiram waaye nag mbir mi moom bi mu jógee rek dafa jawali ci boroomam dénk ko boroomam wóolu boroomam rafet njort ci boroomam looloo tax boroomam sàmm ko aar ko ñoŋal mbiram ba ña nga xam ne ñoo ko ko yéenewul woon dem bàyyi ko fi moom aku xeetam mu mucc mooy la mu doon sàkku ci boroomam am na ko kon doxinu Sëriñ tubaab boobu mooy cëru képp kuy ab taalibe murit mooy boo amee lu la neex wala lu la naqari li nga war a def mooy sa diggante ak sa boroom d'abord ndax sëriñ bi moom ña toogoon ci kanamam daf leen ni da di wut lu baax bëgg lu baax rekk moo leen indi fii moo moo moo waral seen coono yi yépp waaye lu baax dafa am yoon lu baax dafa am yoon mooy li nga xam ni mooy li sëriñ bi wax te it nii mooy yoon wi yoon wi mooy da ngay jël sa lépp delloo ko sa borom xam ni bu dogalee diwu falu nga bokk ci opposant yi nga xam ne nag yow jullit nga parce que système politique yi ñuy dundee ñun système politique la yoo xam ne dañ koo donnee ci tubaab yi waaye nag am na loo xam ne sunu yëfi bopp la mooy ñun am nañu diine am nañu ngëm-ngëm ngëm-ngëm googu nag mooy tax lépp dañ koy delloo ci suñu borom bu élection jàllee ñu ne diw a gañe ñu ne ah loolu yàlla moo ko dogal ñi nga xam ne dañuy ànd ak ka gañe di liggéey ci réew mi loolu mooy seen cër ñi nga xam ne ñoom dañuy nekk ci kujje gi di xeex ki nga xam ne moo falu ngir mu daanu ñoom it dañuy xam ne yàlla moo dogal ne loolu mooy seen cër bu boobaa nag gannaaw ay jullit lañu ñu di ko rafetal di ko defee noo xam ni li nu am te mu gën lépp te mooy réew mi kenn du ko yàq kenn du ko sànk kenn du ko taal kenn du ci indi fitna loolu mooy li nga xam ne moom laa ci dégg li ci topp mooy taxawaayam moom Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy moom li mu donnee ci sëriñ bi fi nekkoon ay waajuram wuutu ko moom ci boppam mu wuutu leen wuutu ay magam mooy moom day daa mel ni amul benn intérêt personnel d'abord loolu mooy nit ki ci boppam boo ko doon defal boo ko doon defal euh, maanaam bu fekkee da ngaa bëgg a fal nit ki di gëstu mbiram ngay seet ba xam nit ki ndax set na wala taq na wala yooyu kon da ngay xool xam ni kii nit ku set wicc la mooy moom defar rekk mooy ab liggéeyam mooy ab ndonoom mooy taxawaayam waaye dafa am loo xam ne itam daf ko jox ndaw ñi muy seen responsabilité mooy lii mu wax te ndaw ñi ëpp ci réew mi ëpp ci kàttan gën ci wér mooy ñoom nañu góorlu ba lépp ñu koy delloo ci suñu boroom di ko rafetal di di di di topp li leen war ci ndigal di génn li nga xam ne mooy li ñu leen di tere seen kem kàttan ñu di ko daw jël ak njub ndax baat yooyu yëpp da ko indi mooy tekk gi mu wax mooy njub gi mooy dal gi mooy ànd ak yar mooy ànd ak teggin te rafet njort ci sa borom yàlla kat li gën ci nun rekk lay dogal loolu nun ay jullit lañu ay murit lañu war nañ koo xam bu baax a baax a baax a baax su ko defee nag moom moomu nga xam ne régulateur social la dootul saña a boddi kenn dootul saña sànni kenn képp koo xam ni acteur social nga ak noo ko mën a demee muy parti politique muy euh, activiste muy forum civil mooy lu mën a doon rek yow nga ne ci réew mi nga bokk bokk ci jullit yi bokk ci mbindeef yi bokk ci waa Sénégal ak noo ci mën a bokkee rek yëgal ni am na cër boo am ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ba war ci mën a gis sa bopp képp koo xam ni daan defe nag defin woo xam ne amewul ay teggin wala amewul yar ba sëriñ bi gis la nit ñi yéemu ci gis gim la gis ak cër gim la jox ak wàccuwaay wi mu la jox na nga yëg ne sëñ bi sédd na ci yow cër bu ëpp doole sa jëmmi bopp ji maanaa sëñ bi gis na ci Clédor gis ci Assane ak ñamu àndal ne ñii gis naa ci ñoom sunu borom war naa leen mën a delloowaat ci sunu borom war naa leen a mën a tegaat ci aw yoon su ko defee loolu moom mooy róolam ci ñoom def na ko ba mu mët sëkk wàccoon ak ñoom ku dikk fi moom dana la digal lam la war a digal ba mu mat sëkk lam la war a tere it dana la ko tere ba mu mat sëkk bu boobaa nag wuute bi fii rekk lay amee mooy soo nangoo jëfee ndigalam walla nanguwuloo ko jëfe képp koo xam ne dem nga ci sëriñ bi mu digal la yëgal ne wàcc na ndigal lam la digal sa njariñ ci biir wax jooju la nekk lam la wax ne boo ko defee danga am li nga bëgg loolu sa njariñ mi ngi ci biir ndigal la mooy ñoom asankat am na ñu ndigalu ne teg am na ñu ndigalu yaru am na ñu ndigalu ami teggin am na ñu ndigalu rafetal lépp lu ñuy def am na ñu ndigalu delloo seen bopp ci seen borom loolu mooy seen ndigal mooy seen taxawaay bi nga xam ni war nañu ko yaatal ñoom kenn ku ne def la tax loolu mën a nekk te ñoom ay jàmbaar lañu ndax tàmbalee woon nañu ko looloo taxit sëriñ bi rafetlu seen taxawaay ba recevoir leen jox leen wàccuwaay wu ma sëkk waaye am na itam loo xam ne euh, sëriñ bi ci boppam dinañu leen ko leeral ci moom tuuti doora jàll ci li nga xam ne moom la ñuy tëjee waxtaan wi mooy euh, sëriñ bi moom day sunu borom dogalul ci moom muy xam liñ koy wax rek ak di gis li ñu koy won rek am na ku mësa ne Serigne Saliou euh, dongo yi fekk mu koy junju xale yi tilim gi ñu tilim ci saayir ak seen xet gi sëriñ bi ne ko sàllaaw ñoom ñii dey bul sikk mukk ne ñu may xeeñ musk ndax neexitu xet gi bàyyi ko ci ñoom mooy alquran ji nga xam ne moom lañu nekkee di jàng ak topp gi nga xam ne moom lañu topp lu baax ci man di ko wut loolu moo tax seen mënuñu maa lor ci xet kamay lor ci xet kay mooy ka nga xam ne dana sol lu rafet xeeñ parfum bu neex te fekk dafay moy yàlla sàllaaw mooy yàlla goo gii dey saa bu nit toogee ak man def ko moo may lor ci xet kon du ci mbubb mi euh, du ci jëmm ji du ci yenn defin yi wallaahi am na koo xam ni Euh, la mu sol dem ci sëriñ bi boo ko gisoon da nga naan moo gën a yiw ci àddina fekk na rek euh, la muy nëbb ci ay ayibam sëriñ bi xam na ko booy waral kersa googu muy def di sëgg kon bu kenn jàpp ne gën nga nit ba war koo xeebal mu jataayoog sëriñ tubaa ndax inna akramakum indallahi atqaakum gënante bi weesuwul ragal yàlla rek kon nanu ko yéene ñëpp te bëggal ko ñëpp te jàpp ñëpp ne kenn ku ne am nga sëb cër ci sëriñ bi euh, li ci des nag nga xam ne moom la ñuy tëjee waxtaan wi mooy euh, Mamadou Ibra Kane miy wax euh, média dafa nekk loo xam ne dañ koy gëstu dañ koy gëstu ci ay concept yu bari yoo xam ne yaakaar naa ñi ma yàgg a suivre dégg nañu ba tàyyi ma ciy wax mooy fu financement média yi di jóge ndax ñiy financé ñooñu ñooy presque dicté seen ligne éditoriale yi te réew mi dafa nekk réew moo xam ne euh, am na ñu fi am ay intérêt bu ñu sañoon balaa loola dara di ca xew réew mi tàkk wala li fi jot a amakus ci ay valeur yàqu ba noppi ñu door a tàmbali seen liggéey wala seen gis-gis jéem naa def ay gëstu ci immédiat waaye gisuma dara je ne sais pas d'où viennent les financements xawma kan moo moom de immédiat ak ñan la ko séq ñan ñoo def seen alal ci communication ci biir réew mi ak lan lañu bëgg ba tax ñu xëy di tàmbali di wax ci xalif général des murit nañu xam ne dégg nañu junju bi Mamadou Ibra Kane junju ab junju kese la waaye xam nañu ne bii di ñëwaat bu ko sañee wala bu ko ñemee lu gën yéeme loolu lay wax waaye nag na xam ne Sëriñ Muntaxa rekk lañu am te kenn du ko jàll baat kenn du ko ñaaj ñoom nag boo gisee ñu attaqué ki tax réew mi dal ne tekk nga xam ne bëgguñu jàmm ndax ku bëgg jàmm di nga bàyyi sëñ Muntaxa li mu seet ba jàpp ne dëppoo na akub liggéeyam mu def ko nam ko bëggee mooy ku mu war a gis ne la toogal yarul dalal nga toog yaru dal loolu defe naa bàyyi ko mu mu siq ko ak ñim ko war a séqal ñëpp ba ñëpp dal ba kenn ku ne la nga bëgg ci jàmm nga di ko dox di ko wax defe naa moo gën fuuf di lijjanti kan la war a recevoir ak kan la warta recevoir euh, li ñuy tëjee nag mooy rekk euh, di soññaat sunu bopp di soññaat ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal sëriñ bi ñuy sunuy mbokki taalube euh, ci ñi ñu ko sañ wax nag it moom laa moom moo tax may wax mooy bu nit ki defee walla mu wax lu mu warta wax jëme ko ci sa kilifa wala mu dendale kook sa kilifa na nga ci am taxawaay bu ma sëkk waaye bu mu la tax a fàtte sa bopp mooy yar ak teggin ak dal euh, il y un pouvoir absolu qui est qui n'est que pouvoir divin kooku c'est un pouvoir qui na dépend de personne dont personne dont tout le monde dépend ñun ay relatif lañu waaye nag nous devons être de relatifs positifs ab murit jataay bu mu bokk apportam ci jataay boobu dafa war a positif maanaam sur la toile notre présence warul nekk loo xam ne dafa metti ci nit ñi wala mu diis ci nit ñi wala muy indi fitna ci nit ñi nun murit nun taalibey Sëriñ Tuubaa fépp fu ñu war a nekk di di di di di delloo nit ñi ci sun boroom képp ak di leen wax ak a jëf looluy tax a bëgg Serigne Touba defe naa ci loolu mooy li nga xam ne ci li ñu war a yëngu mooy ci lañu ñu war a wax moom ci lañu ñu war a publier moo nekk sunu apport ñun ci débat bi nga xam ne mooy am ci toile bi eh, sëñ Modou Rachid Ndiaye dafa waxoon ne Serigne Touba nee na nuyoo ñeenti baat la asalaamu aleykum wa aleykum asalaam mbaa jàmm ngaam jàmm rekk nee na assalaamu asalaamualeykum ki nga koy wax mooy da ko ne mbaa yaa ngi ci ndigal wa aleykum salaam mu ne la waaw maa ngi ci ndigal mbaa jàmm nga am mooy mbaa laaloo dara lu ñuy tere nga ne ko jàmm rekk mu ne la waaw kon laaluma dara lu ñuy tere sëriñ tubaa daldi ne bu ngeen waxantee ñeenti baat yi ka gën a xam moroomam boroomam na ca dem ak moom te lu mu yàgg-yàgg bu leen fa wax luy sànk ab jullit loolu nag nanu ko yóbbaloo nanu ko jàpp nanu ko fonk nanu xam ni débat bi sunu taxawaay mooy lu baax sunu kàddu mooy lu rafet sunu participation mooy luy delloo nit ñi ci yàlla ñun moom je pense que l'abrutissement ne peut pas nous atteindre si nu conforme conformons aux enseignements de Cheikhul Khadim. Un mouride ne peut pas être abruti. C'est pas possible. bu góorgóorloo ci li ko sëriñ bi digal lu mu tuut tuut rek ku muy waxal danga nga yëg ci moom teggin ya sëriñ Cheikh Tidiane si waxoon na ne yaaram baatu bu yaaram dégg ngeen ko euh, nam ko indee woon ci murid yi ci boppam ni ñu indee seeni teggi nag seen wax ak lépp ni mu rafete loolu nag ñu ngi leen di digalaat ni ñu ko sañ a waxee sunu ay rakk ak ñenn ñi nga xam ne sunuy bokki taalube lañ nu góorgóorluwaat ci bu baax a baax a baax a baax nañ ci góorgóorluwaat bu baax ñu ngi leen di sant bu baax nag di leen gërëm di ñaan sunu borom mu dolli ñu féex ci biir ak ci biti asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.